kër Tambédou Imo di yëngu ci wàllum njaayum suuf mu yomb lool garantie ànd ak social Maysa général électrique ca Malicounda di jaay lépp lu jëm ci équipement solaire Kim Shop kër Yaay nduuraa nekk fii ci quartier Gounass sur la route de l'hôpital di leen jaay ay diw yu baax ay produits cosmétiques ak ay tissus ñu ànd ak yéen ci seen émission 18 safar sur Widish TV asalaamualeykum bokki téléspectateur u Widish euh, TV ñu ngi leen di nuyooti bu baax a baax di leen ziar di leen ndokkeel ci bés bu màgg bi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadim moo de woon maa ngi dem ci géej gi liggéeyalil sama borom waaye bu ma ñëwee di di sàkku ci képp koo xam ne rek euh, julit nga ñu euh, sant la ma sama borom ñu ngi fii nag ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké 18 safar édition 2023 niki noonu la jël nuyo ak ziar yobante ki nga xam ne rek mom la yalla jiital eh, ci yoon Bachir Mbake, di ñaan yalla yalla eh, guddal fanam te yokku ko ak la eh, bi di daru la famille Sylla ñom la mu doon maanaam histoire bu yaatu seen digganteeg eh, seen maam ak eh, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim niki noonu la ñu nuyoo képp koo xam ne rek yaa ngi topp sunuy tànk ci eh, télévision bu mag bi di Widish TV la télévision qui vous regarde niki noonu la ñu nuyoo képp koo xam ne rek partenaire nga bu ànd ak ñun bu ñu ko waxee sunu xel dina dem ci kër Tambédou Imo nekk foofee ca Mbour di jaay lépp loo xam ne jëm na ci terrain yoo wóor te leer te njëg yi lool ànd ak social waaye ñi ngi ànd ak ñi nga xam ne rek ñoo di waa euh, euh, Maysa General Electric ñoom tamit ña nga foofee ca diwaanu Malicounda lépp loo xam ne rek jëm na ci wàllum consommable euh, solaire boo demee foofu sa dina sedd waaye ñi ngi ànd ak Kin Shop Kër Yaay Ndoura ñoom it ña nga foofee ci quartier Grand Bourg doon bi nga xam yokk leen ak wér gu mat sëkk muy Serigne Amdi ak Serigne Moustapha dinañu waxtaanee yoon wi waaye dinañu waxtaanee historique gu euh, màggal gi nga xam ne ñun ñëpp moo ñu fi dajale waaye nag ñu fi yëkkati ay zikkar yi nga xam ne rek ñu ngi ko rootee ci xaside yi nga xam ne njariñu neen la bu ko defee damay bàyyi ki nga xam ne euh, moo féetee euh, sama loxo droite muy Serigne Amdi mu yëkkati ay kàddu yu nuyoo jëmale ko ci téléspectateurs yi waaye jëmale ci mbokk yi nga ne rek ñoom la ñu fekk fii sëriñ am di ngi lay nuyu di la ziar. waa maa lay fay bu baax. mbaa yaa ngi am jàmm. maa ngi am jàmm bu baax. ayca bu ko defee ni ñuy def mooy ñu bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateur Widish TV. waaw Widish maa leen ziar baax di jox seen wàccuwaay. Mhm. di ziar di nuyu waa Mbour gépp mhm. bàyyi ma kenn maa ngi nii Touba laa nekk fii fi dëkk. waaye mbuur laay liggéeyee. Mhm. waaw di nuyu nag Cheikh Moustapha mi di nuyu seen laat si la mii ndeysaan moom it di ku baax wax dëgg ba maa woo rek ma bàyyi sama ité yëpp ñëw wax dëgg yàlla am na programme bu ma waroon a jàngi sax waaye damaa bàyyi ngir jëmmam ji ngir ñëwal ko waaw parce que ku la yëg rek amoo leen loo koy waa Baye Diis yi yi dama leen yàgg a suivre wax dëgg yàlla ngeen jaar yoon wax dëgg di jàppale ndaw yeet wax dëgg yàlla waa Mbour gi ndaw yi nekk artistes yëpp damay gis ngeen leen di jàppale mm-hmm. waaw comme bokk yéen amuñu seen fay mm-hmm. yàlla mi nga xam moo am fay nag yàlla leen fay si barke borom màggal gi di ñaan seen télé bi yokk yokk ba mel ni jumaay Tuuba mm-hmm. barke Cheikh Ibrahima Fall amiin waay eh, jërëjëf eh, ñu nit fay nañ la nuyoo di ñaan lépp loo xam ne ñaan nga ko fi yàlla nañu ko yàlla boole eh, dañuy wax ne nag otoraay bu jubee gaar dafay corné dañu lay bàyyi rek am loo ñu ñamal loo xam ne dinañu ko bana barkeeloo laata ñuy eh, dem ci Serigne Moustapha mi nga xam ne moom la ñu fas yéene àndal eh, fas yéene àndal ci waxtaan wu yaatu yi nga xam ne rek eh, war nañu ko jëmal ci guddik tey gi laa ilaaha illallah mhm. laa ilaaha faal illallah faal laa ilaaha illallah faal la ilaha illa lay faal la ilaha illa laram la ilaha faal illa lay faal la ilaha illa la ku sopp Seex Ibrahima Faal la ilaha illallah yi faal budul woon suuru faal faal njaga yaaram bambareer jaam ñi ñi faal budul woon maat faal bambareer jaam ñi ñi faal may sa biige kumba faal Mam serafal, serafal ya, nu ginde fal may sa Kumba fal Serafal ya nu ginde fal budul woon fal Seera Faal yaram njaga ñi ñibbi ah jërëjëf euh, Serigne Amdi euh, ñu nit euh, ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla gën a wéral baat bi yal na yàlla gën a ful at yi te gën laa may wér yaram ndaxte dañuy wax ne baatu la ilaha illallah moom la góor yàlla yi rawee nga bàkk gi nga xam ne moom la ñuy wax baabul muridina Cheikh Ibrahima Fall mi ñu nital Bamba ba ñu xam kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba damay faral di wax nag bo akatenda nan naan ba sa bir fess ba gërëm ki roti won na sa xel dem ci ka nga xamne rek mo gason ten ba kon Cheikh Ibrahima Fall Lamp kenn du mom yalna yalla yok ak leram machallah bu ko defé nak comme ni ko diggee won dañuy dem ci seigne mustapha mom tamit amna lo xamne rek euh, nalon na denc pour bu ñu mu fasiyene ko waxtaanee ak euh, mbokki téléspectateur yi waaye ni ki nonu dañu nuyu famille Silla bi nga xamne ñom dalal fi ci quartier Darou Khoudous di len ziar bu baakha baakha baax di len ñaanal lepp lo xamne rek mën nañ ko ci magal gi ren yalla yalla nay len ko yalla gën di mën lo ba koy ak ñun euh, euh, ci ay at yu bare bare bare bare bare bare bare ci kàttanu yalla ak euh ci barkeb borom euh, magal gi di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Serigne mustapha bu ko defé dañu lay bayyi nga nuyo bo nuyo ba pare nak ñu doga jall ci waxtaan wi nga xamne rek fas nga ko yene baaxee def sa participation ci guddik Cheikh Ahmadou Bamba gi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 الشيخ أحمد بن محمد بن عبيب الله المكي وعن جميع أبنائه وعن جميع أخواته وعن جميع المريدين عامة الشيخ إبراهيم ñu ngi lay nuyu bu baax di ak mbokk yi tàdd yi nga àndal ci Widish TV di télévision bu am solo boo xam ne ni ko bi waxee sànq rek télévision la boo xam bu jara bàyyi xel la ndax mi ngi yee jeunesse bi mi ngi leen di taxawu rawatina nag lu am solo lii ngeen def tey tàmbale ko ci bis bii nga xamante ni mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weer safar ngeen bàyyi seen yite yëpp bàyyi ko bu mbuur ñëw euh, bokk ak ñun jataay yi waaw ñi ngi lay fay bu baax te la ziyaare ni ma ko waxee rek yaa mbokk yi nga àndal bu baax te di la sant bu baax di la gërëm hmm. ndax yow suñu wëlëre bu yàgg yàgg nga du tey démb la woon waaw yaakaar naa barab bi miin nga ko lool bu baax sax waaw kon ñu baax yaa ngi nga àndal <laughs> ñu ngi lay delloo ziar tabarakallah eh, jërëjëf eh, bu ko defee nag eh, ñu nuyu ñi nga xam ne rek ñooy sunu mbokku taalibe i nga xam ne ñoom tamit ñi nga bawoo ca Mbuur ñoo fekke si jataay bi di leen ziar bu baax suñuy ñu ndax te ndaxte dañuy wax ne gor du fàtte démb du xeeb tey du yaakamte ëllëg waaye Serigne Moustapha ginnaaw bi nga nuyoo dañu bëgg rek nga ñëwal ñu tuuti rek Eh, ci waxtaanal ñu ci Cheikh Ahmadou Bamba borom tukki bu sori beeg sëriñ bu doon bi yoon wi nga xam ne rek dëgg dëgmaloon na ko te eh, waxoon ne maa ngi dem te ñëw bu ma ñëw ngeen santale ma sama borom nga ñamal ñu tuuti rek ci yoon woowee nan moo ko sabab ak nan la demee woon. jërëjëf sëriñ Ibrahim mhm. eh, damay faral di wax ni sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu yomb na waxtaane lool waaye jafe na waxtaane mhm. li tax ma ne yomb na waxtaane mooy moom day géej goo xam ni foo foo boo làmbee sa loxo foo foo dugal rek daj ko. dëgg la mooy yomba waxtaane gi. Mhm. waaye jafe waxtaane gi nag mooy day mbootum biir moo xam ni. Mhm. waxtaane dëgg dëgg jëmi sëñ Tuubaa jafe-jafe jafe la. Mhm. waaye liñ ci mën a wax rek mooy a Cheikh Ahmadou Bamba. xaadimu rasul moy al abdullahi taala wa xadimu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam def naa duñ tardé ci kan mooy ay waajuram ndax def naa ñëpp xam nañ ko mhm. duñ tardé itam ci ab njàng am njàngam ndax def naa euh, nettali nañ ko ba tàyyi mhm. waaye dañuy tàmbali rek ci tukki lu waral tukki bii nga xamante ni moo waral bis bi tey mhm. muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar Sëriñ Tuubaa dafa doonoon jëmm joo xam ni jëmm ju yéeme la woon ndax ni borom Busayri di wax ni alifun nuska wal ibadatu wal xalwatu tiflan wa hakaza nee na bokk na ci mandargay nit ñu baax ñi dañuy teel a miin jaamu yàlla mhm. ci ndawam rek la teel a miin jaamu yàlla mhm. wax nañu waajuram soxna jaaratullahi mariama buso daan na ko wax ni ko bokk na ci melow gaa yu baax yi day dañ daan jug guddi di naafila mhm. loole ba mu ko déggee ci ay atam yu néew yooyu mu ànd amoon nga xamante ni àggutoon sax ci fukki at wax nañ ni ba mu déggee loolee da daan taxaw di fanaane ndax bobu tolugul sax cim njàng mhm. waye da daan taxaw di fanane, mhm. taxaw ba beut set mhm. ngir deg gogu soxna si degon ñu ni gaay yu bax yi dañ dan fanane julli ba beut set bokku na ci itam mom euh, euh, cheikhul khadim radiyallahu anhu ci ndawam euh lepp lo xamanteni luy ay tiaxan wala lo xamanteni ni luy luy yàlla gërmut la ci ndawam lu ko suñ borom teela ragnat la mu xamé ko am na xissa buñ ci nettali bu yéeme boo xam dañuy wax na soxna jaara bi sëriñ bi tollee ci ak ndaw mhm. loolu ñuy wax boot mhm. euh, waajuram def ko ko mhm. di am di am fu mu jëm ba toll ci barab boo xam ne dañ fay tëgg ak dafa sabar nee na biñu agsee ci barab bi ba toll ak soxna si dem ba toll barab bi nee na dafa yëg ci ginnaawam luy fuddutu ba ba ba ba metti lool ci soxna si waaye nee na bi mu wàññikoo rek mu mu mu mu daal di mu daal di dal mhm. mu xam ni jëmm ji mu boddee mhm. jëmm la joo xamante ni jëmm ji suñu borom def ci moom la mhm. waaye soxna soosu itam nga xam ne mooy waajuram di soxna jaara itam dafa doonoon ki yéeme ndax jamono ji ku ne xam na ni doom ju mel noonu ku ko suñu borom joxoon li ngay njëkk def mooy a ah, sama doom ji de ku doy waar la moom de day def lii day def la waaye soxna si da ko nëbbaloon xar baax yi nga xam ne suñu borom da ko defoon ci moom di ko feeñal kooku mooy Cheikh Ahmadou Bamba bi mu tollee ci am njàngam noonu la demee loolu def naa duñ ci mu doonoon jëmm joo xam ni dafa teel a ni ma ko waxee léegi miin jaamu yàlla mhm. teel a bëgg xam-xam lool mhm. mbooleem euh, ci diggante gànnaar mhm. ak Sénégal kuy borom xam-xam rek sëriñ bi dem na ci yow taataan la nga yor ziyaara la euh, jëflante yow jëflante bu rafet euh, ci noonu itam mu tàmbali itam di def li ñuy wax jàng ci biir kër waajuram bu góor di sëriñ Mor Anta Sylla sëriñ Mor Maam Mor Anta Sali fala nekkon nekkoon di kok mm-hmm. boole ko di jàngale mm-hmm. wax nañ ni sëriñ bi bokk na ci li gëna yéme moy euh ci euh Mamour antassali da na ko jangal dars bo xamni manam mm-hmm. maanaam ak seegu ca woon bu ko jangal ngir donga yi nga xamni janggal, da leena wara jangal tax dañu wax ni Mamour antassali ku bar am jàngale la won léegi bu daan jàngalee donga yi dañu demone ba minon njàngaleem sëriñ bi ngir Mamor bargim baroon yooyu ñu ñëw ci moom di di ci moom xam-xam mhm. waaye wax nañu bu sëriñ bi masaana ñëw ñëw da koy jàngal bind boo xamante ni moom accès gu ca mhm. ngir mu di ko jàngal yenn donga yi loolu loolu lu yéemee yéemee yéeme la wax na itam sëriñ bi bind na ci mhm. ak ndawam téere boo xamante ni ci kanamu waajuram la ko bind am na ñuy wax ni mu nawir sudur wala mu layinu sudur am na bu mu ci mën a doon sëriñ bi sëriñ bi jàngal na Mamour Anta Sali jël na ko jàngal ay doomam su Ibrahima mosuñoo xam ni histoire mosuñoo nettali ci ci lislaam mm-hmm. koo xamante ni euh, bind nga téere ci sa kanamu baay sa baay jàngale ko loolu ci Cheikh Ahmadou Bamba la njëkkee mm-hmm. ñaareel ba itam euh, bi mu bi nga xamee ni nekk na ci daara ji di jàng mm-hmm. mu tool topp waajuram comme ni nga nga xam ni noonu la noonu la ko lislaam sante mu topp waajuram nanguwut a feeñal dara nanguwut a gis boppam ci dara nanguwut a xam dara lu doon ab taalibe ci kanamu waajuram waaw ndax jamono boobu mu ngi yoroon li wax werdu xaadir ginnaaw bi nag bi nga xamee ne waajuram nelaw na mu wuutu woon ko ca daara ja di yor continuer njàngale mi di jàngale mhm. bi nga xamee ni dem na ba nga xam ni euh, li ko suñ borom denc ci moom mhm. ci mu xett li jaam ni nga xam te loolu moo waral bis bii tey mhm. mu war koo génne dafa lay daan gaaral net net nañ sëriñ Sàmbay day faral net li day wax ni daan na bind allo ba mu àgg nit daan na bind allo mu ñëw topp ko ba mu àgg mun ko allo ji di wow na lool waaye day li muy am am am am doomi soxna ndax lii de lu yéeme la doomu soxna bu jàng alxuraan bu mokkal ko bind ko te du ko xool mm-hmm. yéeme loolu waaye am na lu ko gën a yéeme mm-hmm. ñun ko am moom mbàkkee lu ko gën a yéeme mu daan ni xalima ga ñuy bind ci aras buñ koy bind mi kij kij nga dégg xalima ga looloo gën a yéeme mm-hmm. dégg leen leen a gaaral wax nañ ñi bi nga xamee ne suñ Mor Anta Sali nelaw na mu daal di wuutu suñ Mor Anta Sali ci daara ji yor kay at di jàngale ba benn bis mu xëy suñu borom digal ko nag ni ko sa woote bii eh, na nga ko fësal ba ñëpp dégg ko loolu mooy rabbi asxaabaka bil immati wala turabbihim bi darsi faqat loolu la ko yonente bi salaa sallam feeñ wax nee ko sa taalibe yi nga àndal na nga leen yar bil bil himma mooy ci yitte mm-hmm. waaye bu leen yar rek ci njaagum kese donte loolu mu xam ne njàng lu am solo la mu mu mu yar leen ci bil himma te mooy li nga xam ne mooy at tasawuf mm-hmm. at tasawuf at yi ci noonu yi ci la woote woon yoonu murid màgg wi mhm. wax nañ ni bi mu ko wootee euh, ca daara ja ñu li ëpp ci euh, euh, mbooloo mi dañoo tasaaroo mhm. ñenn ñi wax ni ñun de jàng ñu fi indi woon suñu waajur dañ fee indiwoon woon ngir ñu jàng ñenn ñi wax ni man de kanaaw jàng rek moom fi indi woon kon damay dellu dem mhm. waaye nee na sëriñ bi ne sëriñ bi daal di gestu rek nekk ca lam nekk nekk ci ay téeram ak i bindam lijjantiwu leen nekk ca lam nekk rek mm-hmm. yamale lim nekk nekk ca menn moom képp ak ànd ca ak mbooloo mm-hmm. ci noonu euh, wax nañ ni ki nga xam ne moo njëkk a ci sëñ Tuubaa bu ñu la ko laajee mooy sëriñ Adama Guèye mm-hmm. waaw loolu ci làmmiñu sëriñ Moussa Abdourahman Lo euh, doomi soxna Muslimatu Mbàkke la moom sëriñ Tuubaa ak sëñ sëñ sëñ daam Abdourahmane Lo xam naa kon loolu moom lu wér a wér lay doon nee na sëñ Adama Gueye te nee na yoon sëñ Tuubaa moo ko bind Adama Adama ak sëñ Ibrahima Sarr Njaañ ak Masamba sëñ Masamba Diop Sam ñett ñi ñoo jébbal ñoo njëkk a jébbalu ci sëñ Tuubaa bu ñu la laajee ku njëkk a jébbalu sëñ Tuubaa ne sëriñ Adama Gueye waaw kon xam naa dañu lay bàyyi ba kii ngi waaw euh, foofu nga foofu laa bëgg ñu yëkkati ko ndaxte euh, euh, wax nañu ne ci barab bi ñu nekk tey muy Daaru Xuddus fii la yoon wi soso maanaam yoonu tukki gi fii la sosoo lan nga ñu ci mën a may loo xam ne rek Euh, ci histoire ci euh, lan moo sababoon tukki bi ak euh, nan la ko dikkee. waaw jërëjëf sëñ Ibrahima loolu loolu nga wax noonu. Mhm. lu wér a weer a wér la. Daara Xuddoos gii ñu nekk fi la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk a feeñoo. bi mhm. lañ njëkk a gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu gis ko gis goo xamante ni maanaam gisu jëxëran lay doon nga xamante ni dara doxul seen diggante. boo demee fii ci Daara Xuddoos am na fi ñuy wax jàkkay Daara Xuddoos mhm. te moo nekk ci pencum Daara Xuddoos mi. te sëriñ Mbàkke Madina yeesal ko wax nañu fi la njëkk a gisee ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon fii yoonu murit moom euh, daar Xuddoos mooy xol bi bu doon jëmm la Tuubaa bu doon jëmm la Daaru Xuddoos gi ñu nekk mooy xol bi mhm. waaye sëriñ Tuubaa ni ma la ko waxee itam sëriñ Xalil euh, ci ak ndawam rek gannaaw ba mu jugee woote woote bu rëy boobu nit ñi wuy si ko mhm. dafa daal ci ànd ak nag ak tarbiya li ñuy wax ak tarbiya mhm. ak tarbiyatul islaam yi sëriñ moo ko njëkk a woote mooy tarbiya ndax euh, ak tarbiya mooy lan mooy dafa am ci lislaam loo xamante ni euh, ndaka jekk amoon na mhm. mooy julli woor natt asaka ak mbooleem xeetu yu baax yëpp loolu Sëñ Tuubaa fekk ko fi da ko mhm. tey tamit euh, da koo ñëw yeesal ko mhm. waaye ak tarbiya nag mooy la yonent bi sallallahu alayhi wa doon dund ak sahaaba yi Euh, authentique ba originalité bi nga xamante ni loolu la lislaam du doon dundee mhm. sëñ Tuubaa indi ko modèle boobu mhm. ngir wan ni leen ndax euh, euh, lislaam dafa amoon yoo xamante ni demoon na ba tàmbali di mhm. raaf waaye sëriñ bi bi mu ñëwee daf ko raxasaat ba mu set mu indiwaat ko ci anam bu yéemee yéemee yéemee yéemee loolu moo waral sëriñ bi ñuy wax tudd sëñ Tuubaa di tudd ak tarbiyatul islaam yi macha Euh, jërëjëf euh, bu ko defee nag euh, dañuy fàttali ne ñu ngi ànd ak yéen fii ci Touba ci quartier bu ñuy wax Darou Khoudoss wax na ko léegi yoon wi nga xam ne mooy yoonu géej gi fii la doore ndax fii la ko sangam ba Seydouna Mohamed feeñoo ñu waxante kàddu yi nga xam ne rek moom moo sabab yoonu géej gi. ba tey waaye di suivi la ñu àndal édition deux mille vingt trois dix euh, huit safara deux mille euh, vingt trois di bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy équipe bu waaye di suivi Moussa Diallo ci régie bi waaye Serigne Fallou moom la ñu àndal ci caméra yi di gërëm képp koo xam ne rek téléspectateur nga. comme niñu ñu leen ko waxee nak waxtaan wi dina yaatu ndax amna ñeneen ñu nga xam ay ay kat lañ ak ay kat yi nga xam ñu ngi xaar ci ginnaw euh, fatali leen partenaire yi rek ñoo di wa kër du Imo kep ko xam rek yaangi yow ci département de Mbour wala sax ci Sénégal bëgg kër gu law te yewen lool ke di wóor euh, te ànd ak social da ngay lekkalo ak waa kër du Imo ci kanam bu ci xëjee dinañu ñëw ci publicité bi waaye ñi ngi ànd ak ñi nga xam rek ñoo di wa euh, G GMS ñi nga xamne rek ñom ñoo nek Wanu ci diwanu malikunda di yëngu ci lepp lo xamne rek euh, produit solaire la seen i palo panneau solaire seen i consommable euh, ci walum euh, solaire foofee ca diwaanu Malicounda ndaxte dina yaxanal dal seni courant yaxanal li nga xamne rek modi seni comme poste way ñi nga and ak ñi nga xamne rek ñoo di wa Kin Shop keur Yaay Ndoura nek fofé sur la route de l'hôpital Grand-Bourg way ñi nga and ak sama xarit bi di Abdoulahat Silla mi nga xamne mo jité Touba cosmétique fofé ci marché bu lépp loo xam ne rek jëm na ci ay produits cosmétiques moo xam diw la wala parfum yu demee noonu mën nga jokkoo ak moom eh, ca 77 414 21 16. bu ko defee dañu dellu ci eh, sama xarit bi Serigne Amdi am lu ñu yëkkatil ñu yëkkatee ko jataay bi xaar ñeneen ñi nga xam ne rek ñoom la ñu fas yéene àndalaat ci waxtaan wi nee naa la guddi gi yaatu na lool. ay ca bu ko defee eh, dañuy bàyyi am Amdi am loo xam ne moom la ñuy yëkkatil ndaxte guddi gi yaatu na ku ne xëj na ci ay ci bismillah. murid yeey nañ leen teelu tey digle maam jéem a gëstu biir Tuuba mhm. xam la fa ne Bamba dey na nooy maam ee murid yeey nan leen teelu tey digloo imaam jéema gësu biir Tuuba xam la fa ne ànd Bamba du na nooy imaam wala ñu sant suuru faalo moom mi ñu waan mu du Bamba imaam maam mi Sëriñ Seex Asis ànd ak Bamba day na maam bi mu nee jurumaleem bay saal moom sama doomay jéem a gëstu biir Tuuba xam la fa ne ànd ak Bamba day na nooy am jërëjëf Serigne Amdi jërëjëf yàlla na yàlla wéral baat bi kon mbokki euh, téléspectateur Widish TV loolu moy ngorna li nga xam rek fasiyé ñuko def fi nga xam ne moo di Daaru Xuddus ci magal gu réy gi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadim comme nima ma leen ko junjee ci ndortel li moo sababoon euh, guddik tay gi muy tukki bu sori bi nga xam rek amalon nako ngir yewi jàmm ñi bu ko defee dañuy dem service commercial andak ak publicité yi ak partenaire yi ñu andal bu ko defee nak ñu dalalat ñeneen ñi nga rek fasiyé ñu yéné ñom aussi

Cœur Tambadou Imo c'est plus de 10 000 parcelles de terrain lotissées de Salidouté c'est plus de 10 ans d'expérience dans le département de mars 2013 mars 2023 le département de Mbour y am fa li terrain 150 mètres carrés à 450 000 numéro de téléphone 77 884 15 55 dans le département de Bignona Guérina sur la superficie de 200 mètres carrés nga y 450 000 numéro de téléphone 78 532 89 dans le département de Goudamp, vous bëggee terrain bu 400 mètres carrés à 600 000 francs CFA numéro de téléphone 77 660 78 89 toujours dans le département de Mbour une superficie de 225 mètres carrés à 650 000 numéro de téléphone 77 884 15 55 mais monsieur dans le département de vous sur la superficie bu 300 mètres carrés Gamoukom à 700 000 numéro de téléphone 78 532 89 67 toujours dans le département de Mbour une superficie de 300 mètres carrés à 900 000 francs CFA numéro de téléphone 77 884 1555. 55 offre yi messieurs valable entre septembre et octobre 2023 kon bu leen toogati di xaar ñëw gaaw ngeen am dëkkuwaay bu mucc ayib ñu sécuriser la ko ko am plan d'assainissement bu mucc ayib lépp loo soxla ci confort da nga koy dal di fekk waaye tamit lépp loo soxla ci garantie da nga koy dal di am ak ñi nga xam ne ñoo nekk waa Kër Tambadou Imo ñëw leen gaaw seet suñu seen coono dëkkuwaay dal di leen woon gannaaw

number Back ngeen jëf euh, euh, euh, di jërëjëfal bu baax a baax sunuy partenaire ci ànd beeg Widish TV Magal Touba édition 2023 ci coloré koluté gi nga xam ne rek am nañu ko ci ñun pour fësal lépp loo xam ne rek ñu ngi ciy yëngu bu ko defee ñu am nag ak contentement wéyal sunu plateau ànd ak ñeneen ñi nga xam ne ay yeneen i gan lañu ci sunu wetu ndeyjoor ñu ngi fi ci ñu wetu ndeyjoor ñu ngi fi am ki nga xam ne rek moo di Serigne Ahmadou Khary Guèye Eh, di jàngkat waaye sunu wetu càmmoñ ñu ngi fi am ki nga xam ne rek moo di Serigne Khadim Silla eh, Daraman bu ko defee nag ñu bàyyi eh, Serigne Ahmadou Khary Gueye mu yëkkat mu am lu ñu yëkkatil ginnaaw bi nga xam ne nuyu na mbokk yi nga xam ne ñu ngi koy seetaan sur Widish TV am loo xam ne rek dina ko barkeeloo ci xasida yi laata ñuy dem ci prix bi salaamaaleykum sang bi. sang bi ñu ngi lay ziar. delloo ziar. di ziare télévision bi di Widish TV. di len di rafetlu seen teewaay ci ci ci bërëb bi nga xamanteni mm-hmm. mm-hmm. ci si seigne touba la ndax amna ci fende bu wér yi nga xamanteni ci motax ñu tew fi mm-hmm. mu Sëriñ Abdu Lahat moo feete fële ca fa lañ xamanté ci ki ñu bolé moy seigne touba te mo doon ko xani mom ku baax la ko xamni leppam eh, seigne touba la waaw fonk ñu lol nak inshallah deug yalla di ku baax ko oyof ko xamanteni ci mom nitu kase la nitu ñëpp waaw ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko tawfeex amiin waay di ko ñaanal waa kër gi mhm. di ko ñaanal yéen suñu yokk seen télé bi mhm. ba kenn ku ne di ko dégg fu ne mhm. fépp fu télé yegg suñu borom ful ko mën na ko barke màggal gi barke ñu leen di siyaare bi wér jërëjëf ginnaaw bi ñu la fee nuyoo dañ lay bàyyi rek nga eh, jàll am loo ñu ñamal rek ci xasida yi bismillahi بركة الذي الوجود والخدم قد وجب لنا من خدم بركة الذي الوجود والخدم قد وجب لنا من خدم سبحان ذي البقاء والمخالفة من خاد أمنا بلا مخالفة ملك الذي الخيام بالنفس وجب له إلى كليتي خاد الهجر الحمد لله تعالى وحده كمال الخمسة والوحدة لمن له القدرة والإرادة والهلم مع حياتي الهبادة لمن له السمع كمال البصر مع الكلام من كل شيء ونصر هو تعالى خادر مريد وعالم الحي هو الفريد الله ربنا سميع وبصير ومتكلم وجاد بخصور لم ينخد هدم ولا حدوث ولا فناء للذي منه حديث رب الورى ليس له تماثل ولا افتخار بل سلوك حمدي لباخ جل تهدري وأنت وانر واسع وددي ملكنا لم ينوى جزء أو كراهة له وليس ينهو كرا أحمد من جهل وموت وسمم لم تنو وقد كفاني الغمم نفحني الذي همم وبكم لم ينهيان ونعم الحكم إيجاد كل ممكن وتركا أجلس لمن كفاك فضلا سركا لا رب غيره وأن سواه هنئ تقر من هداه رسولنا سيدنا محمد عبد رسول اهتماه السمد رسولنا سيدنا محمد عبد رسول اهتماه السمد هماه صدق بأمانة جزم له بتبليغ إلينا انكزم يقود من قيانة وتكما هرم خدمة لهاو كتما محمد بسر من الخدم كرسلي مخدما كن ذا خدم محمد بسر من الخدم كرسلي مخدما كن ذا خدم jërëjëf Serigne Ahmadou Khary Gueye yal na yàlla wéral baat bi te euh, tax ñu ñun ñëpp ci euh, barkeb euh, xasida yi gën ñu may gudd fan ak wér gën laa yokku ba nga yëkku ci barke xasida yi bu ko defee nag comme ni ma ko diglee comme ni ma ko diggee sànq dañuy wax ne am dafay baax lool ginne ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Widish TV la television qui vous ñu mën a xam jaar-jaari Cheikh Ahmadou Bamba ak lan moo sabab màggal gi bu ko defee nag dañu ci ànd ak ki nga xam ne rek moo ci waxtaan ak ñun di Serigne Khadim Silla draban bu ko defé ñu bayiko momit mu nuyo jall ci waxtaan wi nga xamne rek modi yoonu geej gi Serigne Khadim wa alayka assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mm. mbokk mi ginnaaw bi ñu sante yalla julli ci yonentem bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam no ngi jaajeufal maulana sayxina si ahmadul khadim mm. di ndokkeel ak ñaanal si mahamadun al khalifatul xalifatul am taifatul muridiyah di ñaan suñu borom mu gën koo yàggal lool tamay ko ak wér ba ay naalam ak i mébétam lépp man koo sottal mhm. bi barakati sayxina si ahmadul xadim mhm. noonu lañ koy ñaanale sëriñ Amdi Fall Modou Mbenda mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Ibrahima Fall waaye di ko ñaanal mbooleem Cheikh Sëriñ Tuubaa yëpp di ko ñaanal njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp waaye di ko ñaanal mboolem xalifa généraux yi nga xamne ñoo nekk ci réew mi yépp di ko ñaanal julli euh di sant itam ak anduyu teras ak téléspectateurs yi nga xamne ñi ñuy bàyyi xel fuñ mëna a nekk ci aduna bi ak ci bitim réew bi yëpp mbokk bi allah dañu wax yoon wi yaatu na ku ne xej nga ci ku ne mën nga ci barkelu muy sababu guddi gu gi euh, fi nga xamne rek mom la euh, euh, Serigne mustafa yam fofu lañu bëgg a ak yow nga waxtanal ju ci yoon wi nga xamne rek Cheikh Ahmadou Bamba wajon nako fi ci daru khudus yoon wi ginaaw bi mu joge ba Daaru Xuddus naka la demee jërëjëf mu mel ne ngi ci bis bo xamne bis la bo xamne bis la bo xamne ne si Ahmadul khadim si Ahmad Bamba moy ki nga xamne mo joxe won digal li ngir ñu ñu taxawal ko muy bis bo xamne nak ci bu jàlloo ginaaw ci fatali bis la bo xamne ne am bis la won bu tiss ci xoli jullit yi bis la won itam bu tiss ci xoli taalibe yi ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo sopp sayxul xadim ci bëgg ko ndax jëmm joo xam ne yitteem yëpp mi ngi ko joxoon yàlla yitteem yëpp mi ngi ko joxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. pas-pasam mi ngi doonoon àggale mission bi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na ko muy yaatal lislaam mm-hmm. ba moo taxoon mu wax ne lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul xaraawi ini ahmadu mm-hmm. nga xam ne yitteem ak pas-pasam lenn rek la woon mooy yeesal sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. loolu nag sayxu xadim yittewoo gi mu ko yitte woon tax na ci ak njëlbeenam ginaaw bu mu feeñee ci ay aw askan wu tànn suñ borom jaarale ko fu ko war a jaare ci wàllu ak njàng ak yëpp mm-hmm. mu yaroo ci kepparu waay juram yitteem yëpp mu def ko ci bëgg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg koo xam ne dayo bi mm-hmm. kenn xamul nu mu tay mu toll nga xam ne daraan wax ne sax kullu zamanin laa azalu atlubu liqaahu wa artajibu arqabu dana wax ne jamono ñu nekk waxtu wu nekk sama yitte mooy daje ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daje jaayanteeg moom yit jaayante goo xam ne dara duutul dox ci digganteem ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu itam moo taxoon moom Seyxina Si Ahmadul Xadim yitteem yëpp mooy lépp lu ko mën may mu daje ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu mën a am ngërëmul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loola daf koy def yitte moo taxoon mu wutoon li ñuy wax wasila sëriñ Mbàkke moo daan sëriñ mi nga xam ne mooy wasila mooy waajuram moom la defoon muy sëriñam moo ko joxoon wirdu xaadir jël na wirdu tijaan jël na wirdu sarsi waaye yooyu yëpp nag benn mission rek la ci amoon ngir mën a dajee ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mën a bokk ci ñu koy liggéeyal yitte jooju yi nga xam ne amoon na ko bay wax ne jamono ju nekk waxtu wu nekk sama yitte mooy daje ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bu sosee yoonu murit ba ñëw sanc si Mbàkke Bawol ba jóge fa sanc Daaru Salaam ba ñëw Touba ci atum 1888 foofu la nekk nag di fa liggéeyal boromam ba ci weeru koor ba mu àggee ba ca fukki fan ya mujj muy def li itikaaf foofee nag la daje ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu jaayanteeg moom ci biir jaayante goo xam ne dara doxatut ci digganteem ak yonante bi sallallahu alayhi sallam moo tax da sax daraan wax ne man yonente bi mooy sama sëriñ mooy sama wasila moom laa jox sama bopp moom lay liggéey alal la si tahsilahul wasila lakka wa ala fixlahu waxila دانا بحصل صح يا سيدي يا رسول الله يا خردي اني لدى الباب كالمسخود في الخاني بوي مثال بغ جيم بغ يونس النبي صلى الله عليه وسلم مام شيخنا سي عمرو خديم داي واخني صح دا فا مل ني جيم جو خامني موم دا فا ديم بتي بونتو نيك يونس النبي صلى الله عليه وسلم ني جينغ كو في جينغ جو خامني دوتو فجو بوك موتاخ دا ولم حرس سحره الدنيا التي تفتت يدا صائر واصنع من نبيات بل امتدحتك يا مولاي مبتقيا من كردا بعد ما تنهو القتيات نينا léggéey gi muy liggéey loon ak bëgg gi mu ko bëgg ak tagg gi mu koy tagg ak way yi mu koy way nee na soxlawu ci daray àddina mhm. soxlawu mu ci mbooloo mu ko topp wala soxlawu ci siiw waaye benn pas-pas rek laa ci am wala benn mission mooy bokk ci ñuy liggéey loon sa salam bokk ci ndonoom mhm. loolu nag suñ borom may ko ko ci fukki fan yi nga xam ne moo mujj ci weeru koor foofee ba mu jaayanteeg moom jaayante goo xam ne dara doxatul ci diggante mi muy jëmm joo xam ne ak dundam yëpp daf koy jeexal ci yàlla jeexal ko ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax day wax ne fanaahu umri fil ilahi wa rasul yakunu laa fi laabin wala fudul nee na jeexal naa sama dund ci yàlla jeexal ko ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam daana wax ne sax man damaa xuus ci digg mandi gi leere suñ borom yi ba suñ borom mandal ma ci digg ndoxi ngëneelam yi sarabtu min mayaahi nuurallahi waxaadani allahu bi fadlillahi kon yittewoo jooji nag nga xam ne la amoon ngir mottali mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaatal lislaam euh, mu mu fekk jamono lislaam ci tumuranke jamono joo xam ne lislaam tumuranke na ci gox yu bari nga xam ne bu fekkonte ne jëmm la dañuy wax ne dem na ba toll ci sukuraat bañ naan day dee wala du dee sëriñ bi ñëw fekk lislaam ci jamono jooju bu fekkonte ne it ko daay la mu yëre lu ñuy sarit dañuy wax ne ràpp na bam laaj ñu yesalaat ko sëriñ bi ñëw nag daal ne moom dafa ñëw nag ngir yeesal ci sunnat yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, ci ci yaatal ko ci lépp loo xam ne l'islam war na koo amee moom mu jël taxawaayam mission boobu ngir ngir ngir doxe ko loolu nag mooy sabab ak tolluwaay bi mu ci amoon ak taxawaay bi mu ci amoon moom Seyxinaa Si Ahmadu Xadim loolu nag mu jaayanteeg boromam ne loolu laa bëgg suñ borom nag dëlanteeg moom ni ko euh, li nga bëgg de mën naa am waaye nag dana jafe ndax sëñ tubaa ay mébétam dafa kawe fa nit ñi doon yaakaar ne kenn war dafaa ñaane foofu la doon tibbe di fa ñaane boromam ndax ki nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam jiitu na ko ay at yu bëri saaba yaa yeneen awliya yu jaar fi moo wax ne moom ca ñooñom la bëgg a bokk bëgg a bokk ca ñu koy liggéeyal kooku da xam ne kon am na vision am na fu mu teg bëtam hmm. loolu nag xam na ne liggéey bu yomb mayew ko xam na ne itam jox yàlla sa lépp moo koy maye moo tax mu fab léppam jox ko boromam jox googu nag mu jox boppam boromam ngir bëgg taxawaay boobu ma mën ko motli suñ borom ne ko loolu de mën naa am waaye jaayante jaayante gi mën naa la ko nangul waaye na la leer na ay nattu dana dikk ci yow natt yoo xam ne kenn xamut nu mu toll ci ay nattu ta benn ci natt yooyu rek boo ko jàmbatee wala nga am ko ci lépp loo yaakaaroon ne war nga ko am ci aw yiw danaa ko raaf mhm. mu daal di ne borom bi ci pas-pasam ak dëgëram ni ko man day mission bi ma am Eh, yow yaay ki nga xamne ya mom ru yi ak jëm ji ni hamne man ru gi rek moy moy li nga xamne ci ne mom la xamne mënuma ci dara yow yaay borom so mako ko pass pas bi ak jom ji matana na bi nu mëna rek man nako angase engagé ngir mëna agal émission motax seigne Moussa Kanaan yan ban yanon khutbu ya ak labdar ya te attanuñ ko moko fab raw gaaña dangeñ di wey ta tawatul balaaya hmm. eh, yanu gim yanu eh, monsieur bobu nak moy sabab bi nga xamne moo waral génn gi ndax ku ne xam na ne sëñ Touba Touba gii ñu nekk tey di fi màggal bisam bi mooy béréb bi nga xam ne moom la gën a bëgg ci béréb bu mas a dëkke moom say xinaa si Ahmad al Xadim waaye nag suñ borom dafa dogal moom sëriñ bi bëgg gi mu ko bëggoon daf ci am cat ndax euh, suñ borom da koo xamal ne li nga bëgg ngir nga am ko faww dangay génn sa dëkk bi xamal ko ne ko it amna nijaayam ju wax Serigne musobe mi ngi fi ta wali yu kaamil la amna na cër ci suñ borom suñ ta bobu mi ngi dundu suñ borom xamal ko ni li fek mi ngi ci kaw suuf di dundu euh nattu yi do doo ko mën jël ni ko mën waré ndax lépp lu wara dik ci yow rek mom da koy défense ndax défense la won ci mom moom kooku mooy càmmiñul Serigne Soxna Jaara di nijaayam muy Serigne musobe euh yàlla dogal nak bi Serigne musobe waccé ab liggéey ci la sëriñ bi gàddaaye fii nag ci weeru kor yi ginnaaw jeexalee koor gi ba noppi ci weeru kor ci la génn dëkk bi dem sanc ci dëkk bu ñuy wax Mbàkke bari bi muy dem sax booba euh, wax nañ ne def na fa lu toll ci juróomi weer Mbàkke Baari googu yi dëkk la boo xam ne maamam ku ñuy wax Muhammadul Xayri moo ko sancoon Muhammadul Xayri mooy way juru maam Balla Aysa mi nga xam ne mooy way juru sëriñ Mbàkke Mor Anta mi wéjur sayxul xadim mbàkki bari googi nag mën naa wax ne foofii la sëriñ bi nekk di fa liggéeyal boromam ba tey sababu ñu exilé gi muy génn gi ñu ko génne foofu la la démarré ndax sëriñ bi ba fa nekkee ku ne xam na ne taxawaay yim amoon mooy yaatal lislaam te histoire ci boppam dafa noté ne sëñ Touba ginnaaw bi mu wootee lislaam tarixatul muridiya nit ñi wuy nañ ko wuy woo xam ne histoire noté na ne amul kenn ku ñu xam ku mas a woote ñu wuy la wuy si gu mel ne wuy si gin wuy si Sëriñ Tuubaa ci mbooloo mu bëri mhm. ñu di ko wuy si mu woot woo leen ci dëggal woo leen ci moytandiku bidaa wo leen ci taxaw ci lépp loo xam ne ay war-war la mhm. ci wàllu diine mhm. moom Seyxina Cheikh Ahmadul Xadim nga xam ne kon bi mu demee Mbàkke Bari gi nag dafa nekkoon demoon ngir bëgg a mottali liggéeyam mënu fa yaatu ndax booba mission bi amee ceddo yi wala boog buur yi booba am nan aw dig ci digganteem ak sëriñ bi ndax ñoom bëgguñu woon koy dajale mbooloo sëriñ bi sax jubluutoon dajale mbooloo waaye am gum amaloon njariñ askan wi ak liñ bëgg ci yàlla di ko am mu mu mu leen ci nàmpatal loola tax na nit ñi doon bàyyi ko fu nit di ñëw ci moom buur yi itam daf koy noonu mm-hmm. tubaab yi itam benn mission rek la amoon mooy not occupé maanaam xam nga ndax tubaab dafa boole woon ñaar daf doon not ñun tudde ay sëriñ ndax sëriñ si booba ñoo ñoo ñoo doon daja taalib yi doon ñëw ceddo yi itam ñi nga xam ne ñoo doon ay buur dañ doon am mbooloo te tubaab yi it booba dafa bëggoon a not suuf si maanaam yilif leen maanaam man fee samp ak christianisme nga xam ne maanaam li ñuy wax euh, de colonie sénégalaise ba ci seeni waaw la ñuy dox mhm. loolu moo nekkoon seen moo tax sëriñ bi bi mu ñëwee mënta jubóog buur yi mënta jubóog tubaab yi mhm. ndax kenn ku nekk da ngaa jàpp ne li nga yor dana ko foqar ci lépp nangu ko ñu ñëw ànd ak moom loolu mooy sababu bi mu nekkee Mbàkke Bari mhm. euh, fekk na fa ku ñuy wax Sàmba Lawbe Njaay mhm. moo nekkoon buur bi Jolof ca jamono yooyu yaakaar naa suma juumul waaye Sàmba yitam nin ko naatale woon sëriñ bi di wax ci lim nekk ak xeet yooyu moom ñëwoon na ci sëriñ bi sax di ko siyaar si ak di xool ci baxam leni li ñuy wax ci sëñ bi ci la nekkam deet waaye moom yàlla dogal na bi mu ñëwee ci sëñ bi sax euh, anam gim ci sëñ bi di ko doxee moom dafa mel ne daf ko mujj rafetlu ba tax na sax xëy na la lam lam jàppoon ngir ci digganteem ak sëriñ bi gëba koo doxee sax xëy na euh, xaw na koo wàññi ba jàpp ne kii daal liñu liñu li ñuy jort ci moom hmm. xëy na amut même toit bi itam moom itam sëriñ euh, laata sëriñ bi di dem sax sëriñ bi yónni woon na sëriñ Mbàkke Buso ba mu demoon ndar ba leeral leen melaw sëriñ bi ak lim nekk ak li muy doxee ba ñoom itam mhm. xawoon nañoo gindiku ci sëriñ bi mhm. ba ba ba wax ne daal mhm. xëy na ñoom nit ñi li ñuy wax liñ liñ jàpp ci sëriñ bi ak li mu nekk daal dafa mel ne wuti daa ne kon daal moom mën naa wéy ab liggéeyam moo tax sëñ bu wax ne moom di yóbbu gi exilé gi exilé sëriñ bi moom daf ko bett ndax tubaab yi ñoom moom demaloon na boppam ginnaaw bu ko sëriñ bi yabalee ba mu des si ba leeral leen ban ne daal ñoom sëriñ bi daal li nekk rafet na man mën na koo doxal waaye ginnaaw bu demee ndax Mbàkke bari ci la ci lañ ko jaxase nag mm-hmm. ba ba ba mooy sababu ñu ñu ñu ñu ñu exilé ko foofu yi waaw exilé gi itam mm-hmm. mi ngi tombé ak 10 août 1895 mm-hmm. mooy dëppoo ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar waaw muy 18 safar bii ñu nekk tey waaye lu jiitu seriñ bi di dem itam yabaloon na ndar rakkam maam Ceerno Birahim borom daaru ngir mu dem moom itam leerale ndax sëriñ bi lu jiitu muy demal boppam moom jot na ay bataaxel yoo xam ne yëpp dafay jëm ci kombe ko ngi mu wuyu si waaye jëmm la joo xam ne day dox ci ndigalal boromam te lépp loo seen mu di ko dox rek day wax ne yàlla moo ma ko digal ma di ko def waaye du juyoo ak boromam ci benn. macha allah macha allah jërëjëf euh, euh, sang bi waxtaan wi euh, yaatu na te leer na ku ci nekk mën na mën nga cee jariñu ndaxte Cheikh Ahmadou Bamba pour fésal ni missionnaire la woon loolu moo tax wolof di wax ne jëm ci làmb di bàkku jóge ci làmb di bakku moko gën waye mom da weddi wax joju ndax ba muy dam la ne ma ngi dem té ñew bu ma ñëwee dinaa indaale xéwal dinaa njariñ waye bu ma na ngeen ma santalé sama borom waye dafa am ño xamné euh manam sëriñ bi euh, euh, am amna lu mu defoon ci ñom bokku ci kenn ci ñom ki nga xamné ne moom meññ kër gi fu kër gi ci mom la bawo muy sëriñ cubbu leen tey ci mëna wax ndax ndaxte lepp rek xejul ci wenn waxtaan jërëjëf jëmm joju ngey laaj di serigne cumbaleen Mor yassine silla day kenn ci borom xam-xam yi doon kenn ci nit yalla yi ati bi ñu nekk tay di kër serigne Mahamoud silla di doomi serigne Mbàkke silla mom serigne ma Sylla Faati Xari moom sëriñ Mor yassine silla ati bi ñu nekk tay di atub sëriñ ma Sylla Faati Xari sëriñ ma Sylla di doom ci sëriñ cumbaleen Moriyatin Silla mi ngay laaj tay mom rek lañ xam ko xamne serigne touba mo waxal bopam ne kep ko xamne julena la nga texe moom sëñ Moriyatin Silla serigne sëriñ Silla fatih Xare mi nga xamne moy mooy borom kër gi sëñ Moriyatin mom mi ngay laaj nak damay wax ne kenn la ci kenoy l'islam yi te itam dafa suye rôle bu am solo ci mission sayxina Cheikh Madal khadim ndax sëriñ Touba ku ne xam na ne alxuraan daf ko bëggoon bëgg koo xam ne dayo bi kenn xamul nu mu toll ndax sëriñ bi daw tëdd ci lal lal yim daan am daf ko daan lal fab ay bàjj yu nooy lal ko ca fab kaamil alxuraan yi lal ko ca di fab parfo sikki di wër di sotti ci alxuraan ji naa ko yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili wa qabla kunt tabibi naa ko yow alxuraan yaay sama xarit yaay sama soppe yaay sama docteur bi nga xam ne saafa jom nga jàngoro ju ma am yow alxuraan mi yaa koy saafara alxuraan moom mi nag sëñ Tuubaa day wax ne bépp jafe-jafe boo xam ne am na ko rek mooy solution bi kitaabun bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa uxra min alkarabi nee na njàqare yi adduna yi nee na alxuraan rek koy jeexal sëriñ bi am bëgg gum bëggoon alxuraan bay wax ne képp ku bëgg a xari xaritoog man nee jàppal alxuraan nee képp ku bëgg doon sama xarit sëñ Tuubaa nee jàppal alxuraan sëñ Mor sag Seck doon jëmm joo xam ne suñ borom daf ko may feex ci alxuraan mu mu am ci ak may may gu kawe sax sëriñ bi itam yàlla dogal na mu nawoon sëriñ cumbuleen Mor Yacine si ba bëgg ko ba dañuy wax ne sëñ Tuubaa lim yor ci kaamil sëñ Mor Yacine kenn xamul nu mu toll keroog bi yàlla dogalee muy wàccu ki bi te nekk Tuubaa te demagut dafa yónnee ci moom sëñ cumbuleen Mor Yacine si la ne ko damaa bëggoon nga bindal ma ay kamil yoo xam ne dama koy yóbbaale ca tukki bi ndax yow de sama borom daf maa xamal ne sa alquran dafa barkel ndax alquran c'est dégg naa sëñ Tuubaa bu masaan jël kamil kamil suñ Mor Yaasin maanaam kamil boo ko masaan jox bu masaan teg ca dënn ba rek bu manqué wenn araf day xam ne manqué na waaye kamil suñ Mor Yaasin sëñ Tuubaa daf koo fonkoon fonk koo xam ne moy sababu kérok bi mu waré dem mu sàkku ci mom ngir mu bindal ko ay kamil yo xamné mom la yobalé kamil yo yi sëriñ bi yobalé won nako ci tukki bi motax bimu nekké mu ñu ko yobbo Gabon bam nekk ci Mayomba fofu ñu ko yóbbu won ci ron garab goge nga xamné fa la nekkon ta mu am fu juróom-ñaari at ta bis mu taw fa ci mom taw bo xamné ne taw na ba kérok bagasam yëpp dañoo toy ba bam dess des alxuraan yoron ak téré yi nga xamné mom la doon bind keroog dafa wax ne kaamilu sëñ Mor Yaasin si la ci la bokk moom tax sëñ Musaa Ka naan keroog la bamba tawte woon ba yol ma sooxal ko moog yéreem ya dig ca wal ma nee na lu dul kitaabullahi fil quraani tooy na keroog ba yàqu bamba nee na keroog kaamilu Moodu Galaba la boole ak yooyu cumbuleen ak kutuba nga xam ne kaamilu sëñ cumbuleen Mor Yaasin la keroog bi sëñ bi di tawte ci béréb boobee kaamilu sëñ Mor Yaasin la la yoon te sëñ Tuubaa nee la am barakatul quraani nga xam ne kon day wane ne kon sëñ Mor Yacine ku jaxasoo na si ñoom. sëñ Touba itam bëggum bëggoon kaamil sëñ Mor Yacine tax na ba Cheikh Mouhamadou Bassir mii nga xam ne tey mooy bàyyi sëñ Mountakha mii bi bi sëriñ bi nekkee ca tukki ba ba ba sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana Dagana demee sëriñ bi daf koo jox kaamilub sëñ Mor Yacine Sylla ci mbuleen ne ko soo demee nag ma joxal borom daaru ne ko bu bu Bassir matee dal nañ ko ko jox mu dal ci kaamil boobee ba tey jii mi ngi ci loxol njabootu Cheikh Mahamadou Bachir ku fi nekkal Serigne Serigne Bachir yaa ko yor ci jamonoy Cheikh Moustapha ba tey ji may wax suma jubut mi ngi ci loxol Cheikh Mountakha nga xam ne boo toppoon booleem njabootu Sayxul Xadim gi yëpp kenn ku ne bi sëñ bi jógee bi sëñ bi jógee wax nañ ne doon nga ci kaamil Sëñ Mor Yaasin Euh, am nga ci kaamil seigne Mor yassine kon lolou day wone ne mom mm-hmm. jëm la jo xamne dal mm-hmm. ku ku ku ku ku jaxasoo woon ak seigne bi la jërëjëf euh, seigne Khadim pour deugal lolou nga wax ndaxte keur gi ñu tok eut bi ñu tok sama dal la amna fi melna at mo xamne dem na seeti seigne Abdou Samad bu sering soyebu Bima ko waxe ne fi la dal lim ma njëkk wax moy mbaa ñaanal nañ la manako machallah ñaanal nañ mo mu ne ma kon sa xel na dal pour rek firndel jaxaso gi nga xamne ne la mami borom kër gi jaxasoo ak Cheikh Ahmadou Bamba pour rek firndeel li nga wax euh, ñi ngi lay jërëjëfal bu baax yoyit dila ñaan dila ñaanal yalla yalla may la yokuté yalla ñu fi dajé ne gëna a ci plateau yu ko gëna yaatu waxtaan wi andana naag fasaha setna te na te amna na bu ko défé nak dañu dellu ci ki nga xamne rek modi di bu ko defee waw hmm, jërëjëf kon ñuy sant yalla di sant señ tuba waye nak di sant xalifab Killa Daraman bi nga xam ne moo nekk xalifab mbooleem njabootu Killa Daraman gépp muy Serigne Moustapha Ramate Silla ñu di ko ñaanal suñ borom may ko ak wér ba naal yi nga xam ne am na ko ngir mottalil ko sayxu xadim mottalil ko ay maamam mottalil ko sëñ Mor Yaasin Silla ci mu leen an mu ànd ko ak mbooleem njabootu sayxul xadim gépp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaye di sant itam sama mbokk yi nga xam ne ñoom laa fekk si muy sëñ Abdoulaye Silla ak mbollem wa kër gi yëpp ñoom sëñ jili ndax wax dëgg yalla mm, goro la ci kër gi doom la ci kër gi ma ngi leen di sant bu baax ñoom itam di leen gërëm alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf eh, ngeen jëfati bu ko defee nak ñu dem ci sëriñ khadim momit euh eh, am lu mu ñu yëkkateele jataay bi laataa ñuy dalal eh, sëriñ Abdullah Lahad Silla mi nga xam mo ñu dalal fi ci kër gi mom tamit nek suñu partenaire ndax te ku wax Touba Cosmétique sa xel dem ci mom Eh, Ninyu ko defale partenaire yi dinañu tok ak mom mu xamal ñu euh euh lan moy eh, Touba cosmétique bu ko defé ñu bayila rek nga tejeel ñu ci eh, barke khasside yi yaqulu abdullahi wa huwa ahmad qadim man sumatu muhammad بسم الإله وهو الرحمن وهو ريم خاد amanu الحمد لله على الكتاب مع سفيع المزي بالعتاب سيدنا محمد خير الورى من خاد خدمة وسورا ثم صلاة الله وسلام على الذي مني الأقلام سيدنا سفيعنا المقدم عند الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الهادي والأزى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمال بتكرار هذا وقصدي خدمة تقر هين النبي بها كما تبر نويت من زلان خدمة تسر مصفى بي كفيت ماسر خدرنت من رب البرايا خدمة لمن بجاي كفاني سدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بسر ولا يجر نهي كيدا حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى وزازا غرورا فخنت نازما لذي المخدمة مصليا بأعلى من خدمه مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمخر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفها بها الذي يريد أن ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام المصطفى نظما مباركا يخي العذاب كما الذي كابدني العذاب أرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في أجر كأجر الراغب خد سرفت للمراد خائلا ما سبع بيتا أو خائلا يا من مت ذوي الإيمان كلهم بأن صلوا على المختار في الرسل من اقبلنا صلاة قد لفظت بها نسما لوجهك يا من قد ما فاقبل نزامي وسحي كله كرما ولا ترد يدني من الحمل فاقبله مني فضلا لا مناقصة وخذ بغير عنائي بيمني اذكر بفضلك سحي وارضين به يا من به في ولم أملي أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد عداني أفضل السبل كلي بجاه رسول الله مالكنا عليه خير صلاة منك عن خبلي وارفع نظامي ذا جودا ولا ترد يا مزيب الحلل دم نظام إلى سعي سياب غدا ولا ترد يا مزيب الخلل شراك المرج في سر وفي علن بحق وجهك حق لرجانني يا ربي كني وخذ لي بالرضا غردي وما التمس بجاه المندخان صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنزم أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنزم أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرماء wa basirana bi nasmi abdal rusul adiye borom Tuuba jërëjëf euh, Serigne Ahmadou euh, Khary Gueye mbokki téléspectateurs yi yaakaar naa euh, loolu na xol lool di ñaan rek lépp loo xam ne yëkkati da ko ci xasida yi yàlla nañu ko yàlla fulal daf koy ngëneel def koy njariñ yu saawante baawaan wesaare ko ci biir Sénégal waaye wesaare ko ci képp koo xam ne rek ab doomu jullit ma fa ndaxte wax naa ne Cheikh Ahmadou Bamba duma ma denc di wax ne mooy borom tukki bu sori bi waaye andil ñu sori ca bu duun boo xam ne rek ku ci nekk war na war nga cee mën a jëriñu bu ko defee dañ leen di gërëm bu baax di leen sant di leen eh, jox dig daje beneen yoon ci yeneen i at yi nga xam ne rek fas nañ yéene dajewaat ci yeneen i plateau eh, cant ak ngërëm eh, ñaan na leen sur Widish TV bu ko defee dañuy ñaan waa régie ñu may ñu benn tampon boo xam ne rek ci gàttal ñu dalal Abdoul Ahad mi nga xam ne moo ñu dalal fii ci kër gi moom aussi am kàddu yu gàtt yoo xam ne rek war na ko yëkkati eh, jëmale ko ci téléspectateurs yi waaye jëmale ko ci mbokk yi xarit ak am di jàmm yi léegi léegi ñu ngi ñëwaat mag bi nga xamne modi Touba mbake ñu fekk ci sunu xarit sunu wëllëre sunu partenaire di borom Touba cosmétique fofé ci département de Mbour bu ko défé dañuy wax né auto nak lu mu xat-xat yobante yaay sa yaay xëcc ñu bayyi ku mu nuyo ak ñi nga xamne ne ñoo ñuy seetaan waaye ak mbokki talibé yi yëkkati cant ak ngërëm gi nga xamne nalon nako ci ab xolam jëm ci ay mbokam ay xaritam ay ganam ay am di ñu waxtaan tuuti nag jëme ci Touba Cosmetics nga xam ne bu ñu ñëwee ca Mbour dinañu koy gën a yaatal ci euh, Wadis TV incha allah Abdoul Ahad ñu ngi lay nuyu. ma ma ma ma ma leen nuyu waa Sèye Ibrahima di jiital ci nuyoo ba siyaar bi siyaar Mamadou Mountakha ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu tu wér di ñaanal euh, Cheikh Mamadou Moustapha Ibn Cheikh Abdoul di sama wasila suñu borom yàggal ko fi loolu tu wér di di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko Mbour ñëw fii ci dëkk mag bi nga xam ne Tuubaa ni mu yaatoo waaye teewut ñu bàyyi ñëpp ñëw ñu ndax ñi ñi ngi dëkk Mbuur ñi dëkk Ndaayaan am na ñoo xam ne sax ba Casamance lañ lañ jógee ñëw dalal ñu ci gi ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm di wax ne amuñu seen fay waaye di wax ne borom bis bi nga xam ne moo tax ñu ñëpp teew fi moom ku ne am ku ne xam ne am na fay yàlla nañ sëriñ bi fay ñoom ñëpp barke suñu waa di sant waa Winis TV surtout yow yow xam ne yàlla ku ne xam na suñu diggante wala waaw ñun mhm. ñoo lay sant ba di gërëm mhm. technicien ak ñi seetaan ñëpp am sëriñ Abdou yow it ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm ñi nga xam ne rek mooy ñu ñu fekk si ci biir kër gi ñu dalal ñu waaye di profité ci occasion bi di gërëm képp koo xam ne rek client wu Touba cosmétique nga comme ni ma ko waxee dinañu ko gën a yaatal loo ñu mën a wax tuuti rek ci gàttal ci Touba cosmétique waaw waaw waaw Touba Cosmotique fa eh, jamono ji ñu nekk nii. Mhm. dañoo déménagé wu dem ci beneen beneen place boo xam ne moo fi nekkoon. Mhm. ñoo den rek. Mhm. Mm, ci même alignement bi la la nekk. te ñeent ñeent Cosmotique rek moo moo dox suñu diggante fi ñu nekkoon. léegi nag ñu buggoon kilaan yi xam ne ñoo nekk Touba Cosmotique. ñu xam loolu bu xam ne eh, fii ñu nekk nii. fala bagage baax yi ak ak mboolem ñu daa def rek mhm. fofu la nekk rëbb ci ciow la waaw mhm. foofu daal euh, luñ bëgg mhm. fofu la ngay fekk ci walu cosmétique waaw fañ nekkoon waaw léegi nak ñu bëggon nak suñu client yëpp xam ne léegi dañoo dem dañoo déménagé wu ñu ngi ci fee ci à côté fiñ nekkon nekkoon te même alignement bi la te même même riz bi la sëriñ bo fa taxawé bo woté dañu jël ci jërëjëf ah Abdou ñi nit ñi ngi lay gërëm bu baax xam naa ne coono màggal gi dalal ay gan yombul euh, comme yow ni ngay dalalee ay gan sonn ci ñoom lool yal na la borom bis bi fay euh, ci barke euh, xasida yi ñu ngi lay gërëm bu baax yow it nga nekk ak njaboot goo xam ne ñii ay mag lañu ñii ay rakk ñii ay soxna ñii ay ndey mhm. ñu yàgg a fekkee ñoom aussi niñ lay jàppale ci say gan ñoom eh, leen di gërëm bu baax ci kàddu yu Widish eh, TV di wax ne rek incha allah bu ñu ci Mbour comme ni ko diggee dinañu ko gën a yaatal mhm. ànd ak yow lëkkaloo ci Touba Cosmétique ak Widish TV ñu gërëm di la sant bu baax a baax. waaw léegi nag maa ngi sant ñi nga xam ne. Mhm. mooy jànkale yi ma ko waxee rek. laa leen wax nga xam ne dañoo si xaar mi mi ngi jógee ba Sura macha allah moom tam damaa bëgg ngeen jàpp ngeen jàppante yéen site internet bi. Mhm. su ko defee ndax moom waxtaan ka la ku baax la. incha allah te te day gëstu sëñ bi. Mhm. te xam na ci lu bëri. Mhm. su Modou Khari moom tam ki toogoon fii léegi mu tam mbuur. mbuur la jógee. mais mi ngi jógee fii ba janatu. ñu ko woowee rek ci la ci la jël taxi ñëw. ñoom tam maa ngi sant ñoom ñëpp. jërëjëf ak mboolem ñi xam ne toog nañ seetaan émission ba mu jeex. di wax ne amul seen fay sant baax. macha allah di wax ne li jublu mooy wane wane jëmi sëñ bi rek. Mhm. waaye amul den lañ ci seet seet lu wane jëmi sëñ bi ak wax ne màggal gi eh, li li tax a jug mooy jaam yàlla ak berne. Mhm. Mhm. loolu rek la amul leneen loo xam ne. mi ngi ci wàllu loo xam ne pour suñu jëm la amu ci. jërëjëf waaw. jërëjëf euh, Serigne Abdou Lahad Sylla jërëjëfati euh, mbokki taalibe yi jërëjëfati euh, mbokki Sylla gi yëpp ñu ngi leen di ziar bu baax. di leen ñaanal eh, jàmm eh, di wax ne amoon nañu mbégte ak contentement déplacé wu fii nga xam ne moo di Daaru Xuddus doon eh, barab boo xam ne c'est historique ci jaar-jaaru Cheikh Ahmadou Bamba waaye di gërëm waa Widish yëpp équipe bi yëpp ñu ngi leen di gërëm ci njiital Moussa Diallo mi nga xam ne moo féete ci régie bi waaye di gërëm Serigne fallu sama Serigne mi nga xam ne moo nekk ci wàllu caméra yi di gërëm Abdoulaye mi nga xam ne moom la ñu àndal ñëpp rek képp koo xam ne rek yaa ngi faral di ànd ak ñun ci suñuy programme cant ak ngërëm ñal na la ayca 18 safar édition 2023 la ñu àndoon ak yéen fii ci euh, nga xam ne moo di Daaru Xuddus ñu seet si njabootu ci léegi yëpp di leen euh, jox dig daje euh, prochainement ci yeneen i plateau di leen wax ne na ngeen di continuer di suivre Widish TV ndax mooy chaîne bi gën mooy télévision bi nga xam ne lépp lu ngeen di sóob rek mi ngi ci ànd ak yéen mu naaj wala muy taw muy guddi muy bëccëg lépp loo xam ne rek yéen a ngi ci ñu ngi leen di ñaan aussi ñu joxante loxo ndaxte doolay jën ndoxte doolay saxaar raay képp koo xam ne bëgg nga sa produit siiw ak bu mu ci mën di doon rek mu fës ndax sunuy abonné yaatu nañu fii ba bitim réew képp koo xam ne sa produit jaar na ci sunuy loxo yaakaar naa ne dina fës lool lool lool lool lool euh, euh, kon donc ñi nga xam ne ànd nañu ak ñun duñu ko weddi di leen gërëm ñoom aussi muy waa euh, Tambédou kër Tambédou Imo di gërëm aussi ñi nga xam ne ñoo di euh, Maysa général électrique euh, ñàkk foofee ca diwaanu euh, Malikunda di gërëm aussi waa Kin Shop kër yaay Nduura ñoom aussi di yëngu ci wàllum cosmétique di gërëm bu baax a baax waa Touba cosmétique kër Serigne Abdoulahat Silla ayca ñu joxe dig daje prochainement ci yeneeni plateau cant ak ngërëm ñel na leen sur Widish TV kër Tambédou Imo di yëngu ci wàllum njaayum suuf mu yomb lool garanti ànd ak social may général électrique ca Malicounda di jaay lépp lu jëm ci équipement solaire Kim Shop kër yaay nduura nekk fii ci quartier Gounass sur la route de l'hôpital di leen jaay ay diw yu baax ay produits cosmétiques ak ay tissus ñoo ànd ak yéen ci seen émission 18 safar sur Widish TV